Euh, ñaari anam moo am bi wàllu diine la bi wàllu wér-gu-yaram la euh, si wàllu wér-gu-yaram wolof yi dañuy wax balaa nga naan naam ne fa pour mën loolu lu am solo la loolu dafay laal geneen wàll gi muy diine boo demee ci diine lislaam bi ma gën a xam dafa am juróomi ponk yoo xamante ni Nous ñooy cëslaa yu ci biir la les cinq principes généraux wala les cinq finalités ñu koy tuddee al maqasid ci finalité yooyu la nga xam ñoo encadré lépp luy àtte ci diine bi ci njëkk moom mooy sàmm bakkan ñeneen ñi nee nañu sax sàmm bakkan donc

am lu muy gaañ bakkan le dañ naan la bul woor ndax bakkan boobule cheikh umarul fuuti radiallahu taala anhu dafay wax ci benn qasidam mu ne sacralité wu bakkanu doomu aadama moo gën a fort ci yàlla sacralité wu kaaba gi te aujourd'hui li xew nii wane na ko ngir ñu aar bakkanu doomu aadama yi tax na ba ñu ni nañu tëj julli gi ñu doon julli ci kaaba gi bu fekkente ni dajaloo gi ñuy dajaloo pour ñaan yàlla dajaloo googu ñuy dajaloo pour ñaan yàlla dafay indi ay bakkan yu loru farata ji mooy ku nekk toog sa kër ñaan sa borom ñu sauver bakkan yooyu naroon lore jàkka yi nag am na solo lool waaye jàkk yi li muy am am am solo nit ñi ñoo ko ëpp solo parce que nit ñi ñoo koy dundal te nit ñee taxar taxek ñu def ko donc pour sàmm bakkanu doomu aadama yi mu ëpp priorité li nga xamante ni moom mooy dajaloo gi ñuy war a